mbokk yeeg xarit yi am mbégte lool janoo ak yéen si li nga xamante ni moo di ganu ayu bés bi ganu ayu bés bi tey jii nag ñu ngi ciy dalal ki nga xamante ni moo di Mamadou Diassé xam-xamam màcc lool ci wàllum génie rural nekk ingénieur hydraulicien ñu war a waxtaanee nag ci mbirum li nga xamante ni moo lëmbee réew mi mu di mbënd mi du jaase ñoo ngi lay nuyu. Euh, jërëjëf Adiya ñu ngi lay fay di la sant la gërëm ci invitation bi. ndax amul luma dessal ci li nga xamante modi présentation bi ma def. waaw xana di wax ne touti ci sama parcours rek parce que effectivement ingénieur en génie rural nek hydraulicien am euh, plus de 30 ans d'expérience dans le métier occupé aussi ay fonctions yu xaw bari parce que dama ci joxe quelques fonctions rek yo xamné ne occupé naa ëpp solo. Euh, nekk naa directeur technique AGTIP nekk naa aussi directeur technique agent national de lutte contre les inondations et les bidonvilles bidonville, euh, nekk naa tamit ingénieur maître d'ouvrage délégué bu fondation droit à la ville euh, loolu nekk na ay fonctions yoo xam ne yu ma yu ma occupé la sans compter leneen ak leneen donc loolu mooy nga xam ne rek mën naa ko tirer ci li nga xam ne jot te bu ci ne am na expérience boo xam ne bu spécifique boo xam ne euh, jëlee naa ko ci mu am rapport direct ak lii nga xam ne moo lëmbee réew mi comme ni nga ko waxee muy inondation yi parce que boo jëlee fondation droit à la ville seen métier mooy restructurer ak régulariser foncièrement les quartiers irréguliers euh, boo jëlee AGETIP ñëpp xam nañ ko donc euh, ci infrastructure liggéey naa ci domaine yëpp ci lu jëm ci tali ci ndox ci courant bâtiment ak yëpp donc pendant longtemps nekk naa tamit euh, directeur technique comme j'ai dit agent national du contre les inondations bidonville yore won tout ce qui était étude de planification ak les travaux donc euh, lolu don ay fonction yo xam dal permettre na ma tay ma war joxe sama contribution ci li nga xam képp kuy sénégalais war na la yitteel. Mamadou Diassé sa expérience euh, yegg na 30 ans euh, dañuy xuus rek dem ci mbir mi lii di inondation muy mbënd mi kañ la ñu war a wax ni que mbënd a ngi nii. waaw xam nga inondation euh, boo ko jëlee ci définition en français mooy li ñuy wax submersion d'une zone euh, pendant un temps donné muy loo xam ne mën na doon loo xam ne cause bu naturelle la comme mën a cause bo xam tamit c'est artificiel ou anthropique manam ci jóge ci doomu aadama euh, muy loo xam ne aussi day ne ay conséquences yu bari li ci ëpp ñukoy ci inondation moy par exemple ay fleuves yu débordé jóge sen lit mineur jàpp sen lit majeur parce que boy c'est cours d'eau dafa am li wax lit mineur en saison sèche li ngay sen lolu moy lit mineur bi lit majeur bi nag mën na dem ba ay kilomètres do ko gis légui nak nit ñi nak bu bu bu bu dul période hivernale wala taw lu bari da faire. man, ay at ndox du fa ne nit ñi tamit sam fa ay dëkkuwaay donc loolu bu fleuve bi demee nag ba dem ba ci li majeur bi mën na dem ba ay mu envahir leen loolu inondation la euh, mën na ay lac mën na ay rivière donc loolu euh, li nga inondation barrage barrage koy def pour retenir wala pour créer courant wala dara barrage su fekkee ne dimensionnement bi baaxul wala nañ ko dimensionné woon romb na ko barrage bi mën na séddee bu séddee tamit day envahir ay dëkk yu ko yu mu wër indi fa ay dommages yoo xam ne yu bari ci wàllum ndoxu taw mi la ñuy wax fii. waaw waaw ndoxum taw taw bu commencé rek ndakaaru surtout rawatina banlieue bi commencé am ay jafe-jafe lan moo ko waral. waaw xam nga lan moo waral taraay bi tamit. waaw xam nga boo dee jëlee sunu cas spécifique Sénégal. inondation yi li ko indi euh, dafa am cause naturel cause naturelle maanaam mooy li nga xam ne euh, muy taw taw mënuñu ci dara suñu borom mooy taw waa ne li muy taw fii boo dee xool euh, trois mois sur 12 la te damay wax ne trois mois sur 12 yi tamit du chaque jour lay taw boo dee xool bis yi muy taw mën nga ko compter te rarement lañ ci am ay taw yoo xam ne taw yu yu doy waar la yu mën a indi inondation donc taw bi la ak taw bi tamit fi parce que taw dafa am nii euh, euh, lañ ko dafa évapotranspiration li nga xam ci garab lay wàcc ak ci ji am bu yeggee ci luy infiltré wu jëm ci li des ruisselé ruisselé indi inondation donc capacité absorption bi infiltration bi faible évapotranspiration bi dafa négligeable donc ndox muy wàcc yëpp day ruisseler loolu da bokk na ci li nga xam ne moo indi phénomène d'inondation ci aspect euh, naturel yi bon nga jël les causes euh, anthropiques li nga xam ne maanaam ci doomu aadama la la la la la la nekk euh, mooy par exemple la démographie donc il faut reconnaître par exemple boo jëlee exemple Dakar un quart de la superficie 0,3 de la superficie un quart de la population concentrée dans ci espace boobu donc day nek lo xamné day am indi ay jafé jafé de quoi donc une urbanisation mal contrôlée bon parce que euh, ñi ngi génn ci année de sécheresse dans les années 80, euh bi taw bi euh fekk na nit ñi seen togay ni togué won woon jagul ci la quartier spontané yi euh, proliféré quartier irrégulier donc yoyep indi ay favoriser na parce que ni ñu nuy sans pourtant viabiliser fi rek donc loolu maanaam mooy loo xam ci la démographie bi nga aussi ci ci euh, ci wàllu euh, euh, que suñ gox yu bari tamit amul parce que l'assainissement bi dafa sooxee donc dafa un secteur qui est ne donc nous ngi négligé parce que damay wax lu assainissement jusqu'à la réforme en 96 ab service la woon biir SONES ne woon direction ab service la c'est en 96 avec la réforme du secteur de lhydro urbaine que l'assainissement a été érigé en en structure ONAS pour gérer tout ce qui est assainissement donc pour dire que nous ko jox un peu de am

donc loolu tamit day nekk luy sooxeel euh, waaye lu assainissement ci biir euh, dëkk dëkkaan yi donc loolu nekk na loo xam ne lépp soo ko boolee muy la muy euh, luy contribuer bu baax a baax ci wàllu inondation ci ci gox goxaat yi donc touché na urbanisme touché na habitat touché na infrastructure touché na occupation du sol touché na wàllu nappe phréatique bi nga xam ne des fois dans certaines zones dafa jage touché na aussi aspect hydrogéologique yi aspect morphologique terre yi nga xam ne dafa bari ay ay ñaay bari ay dépression et cetera donc tout ça euh, fait que actuellement inondation nekk na loo xam ne euh, li ci contribuer daal bari na mais li ci ëpp man yaakaar naa ne ci dafa jóge loxoy doomu aadama mi ngi ci biir. <laughs> waaye lu tax euh, saa su ne rek at bu ne nawet bu ñëwee rek inondation yi commencé di bëri mel ni loo xam ne dafa bette rawatina si nguur gi bay ñuy dem di déclencher ay di déclencher ay plan hors sec ak yooyu. waaw xam nga euh, je pense que boo dee xool. warul nekk luy bette quand même parce que xam nañ ni nawet dina ñëw at bu ne te te te ba léegi am na amoon na fi benn programme plan décennal mais ba tey jii mm, li ñu doon dund rek la ñuy dund depuis 12 ans depuis avant 12 ans sax moom la ñuy dund ba fu ñu toll nii. waaw xam nga wàllu inondation je pense que depuis euh, jamonoy Abdoulaye Wade 2005 le taw mi gën a tar ñëpp ñu koy rappelé wu euh, mu def ci ay quand même euh, lu bëree bëri je pense que investir na plan Jaxaay annoncé woon 52 milliards. Euh, man j'ai eu la chance hein donc euh, liguey ci ci gox yu bëree bëri nga xamné lan fa def bokk ci nga xamné étudier pratiquement liguey nañ ci. maa ngi fàttaliku aussi en 2005 amone nga ben interview bo defone nga ne ni que problème inondation fi ci Dakar du lo xamné dinañ ko régler ci tel effectivement euh, man en 2005 effectivement j'avais dit que la fin des inondations à Dakar n'est pas pour maintenant te fi ma ko tegoon rek parce que yone won jëloon pour régler problème inondation yi damay sonné du yone

moy l'aigle qui vole le plus haut possible donc président dans, à l'époque ne day inondation moom jeex na foofu fan leen jëlee fan leen yóbbu sax li moo gën a inondé léegi waaw parce que fan leen yóbbu sax défar nañ fañ fan leen jëlee defar nañ ko donc loolu doon lo xamné ay échec la yo xamné il faut que nit ñi oser euh, capitaliser li jall am courage aussi xol lan mo soxé ak nan lañ ci apporter ay solutions bon actuellement ñu ngi wax plan décennal bon def nañ court terme bi moyen terme bon long terme bon ñu ngi wax coow lu bari na dépensé nañ ci li dépensé wuñu ko bon loolu ñoom ñoo xam mais ce qu'il faut dire c'est que euh, solution yi euh, dafa nekk loo xam ne dafa laal fànn yu baree baree bari euh, dafa toucher le secteur de l'assainissement assainissement boo dee xool ñi ci intervenir dafa bari tamul coordination bi ci waram amul. Euh, boo dee xool ONAS da ci intervenir Ageroute mi ngi intervenir APIX mi ngi ciy intervenir euh, ONG yi ngi intervenir agence de développement municipal mi ngi intervenir en fin de compte bon c'est c'est affaire bi sa mbox loolu il faut que qu'on arrête ñu toog ñu mettre en place une structure boo xam ne duñ koy jox mandat pour mu régler problème inondation yi moi je pense que tant que defuñu loolu duñu duñu plan bu ñu mënta tegit dinañ fi toogaat di ko waxaat résultat yi ñu bëgg duñ ko am wala liñ ciy xaar du ko ci am. ndax loolu dina mën a nekk. ah si mën na nekk moi je moi je suggère euh, que ñu créer une agence euh, pour lutter contre les inondations et la bidonvillisation de nos villes loolu c'est c'est pertinent par jox ko ay moyens mu mu mu mu yor tout ce qui est réseau eau pluviale euh, toppatoo di anticiper ci inondation parce que li nga wax léegi dafa am solo parce que inondation du ñu prévoir àdduna léegi lépp da nga koy prévoir ah moom la ñuy wax ay euh, plan de contingence.

Il y a un problème, c'est c'est manque de de vision là. donc je crois que loolu dafa sooxe plan de contingence il faut que un plan de contingence au niveau national il faut un plan de contingence au niveau des régions il faut au niveau des communes même un plan de contingence communal ba ci quartier yi sax mën plan de contingence si nous avons jafe contact bi nan la ñuy taxawee loolu règle. anticiper.

Le ñu par exemple ka bu melni Touba wala ka bu melni Matam ñun daaw ñu won gis euh, li ni mel mais depuis une dizaine d'années mom lañuy némé ko ci gox yoyu lan moko waral. xam nga lepp mu ngi ci dépendre urbanisation l'urbanisation est mal contrôlée au Sénégal té lool dafa né un phénomène bo ci tabax yi la. tabax yi ak ni ñu joxé suuf si. parce que euh, xam nga dëkk dafa am plan d'urbanisme plan d'urbanisme mo lay wax né la fii way la buñ mëna dëkk fii zone de commerce la fii zone industrielle la fii zone de lii la fii lii la fii lii fii lii ñu xam ko mu leer nañ bu leen nee fii euh, zone industrielle la allah kulli alin kenn waru fa dëkk loolu duñ ci war a veiller mais léegi Sénégal sa mbax loola ah, même espace équipement yi fi bàyyi woon yëpp gars yi morcelé nañ ko jox ko ay nit ñu dëkk ca doo dem benn quartier ba gis fa espace libre yëpp c'était prévu dans les plans d'aménagement quartier boo jël nga jël plan d'aménagement initial bi ak plan bi ñu réalise actuellement tu vois une grande différence parce que la fa nekkoon desoon a kës nag muy ay réserve morcelé leen ko jaay suuf sa mais loolu il faut que les gens osent le dire mooy pression foncière bi mooy premier problème Sénégal mooy suuf si suuf si tant que réglé wuñu ko je pense le chef de l'État l'a dit nee na li muy jot ci réclamation yi yëpp ci affaire suuf la loolu il faut que les gens osent s'arrêter ñi nga xam ne ñoo yore mbir moom ñu interpeller leen suuf desetul Sénégal dex yi sax duñ koy morcelé di ko jaay il faut que ça s'arrête problème yi l'homme qui est à la cause principale de tout ce qui se passe Il faut que nous nous dëkk ñu nous ko nit ñi espace équipement ñu parce que terrain footballiste, sax gars yi morcelé nañ ko normalement quand tu fais un plan de lotissement 70 est cent yi nga pour ay 15 pour cent yi de la la 15 pour cent ont des ay zone d'équipement. mais quand on koy il faut que ça s'arrête il faut que dëkk bi ñu que ko ci yoon ku doxalul yoon ñu dégagé la ñuy doxal yoon ñu jox ñu jox leen ñu doxal loolu daal je crois que bu ñu ko deful tamit du ñuy sonn rek mais on ira pas loin. Mamadou Diassé waxoon nga en 2005 que solution bi amagul ba tey jii tey jii am na fukki at ak juróom-benn ba léegi réglé wuñu problème inondation fii ci Dakar tey jii ñoo 2021 kañ lay inondation di jeex fi si Dakar. bon inondation kañ lay jeex Dakar il faut que d'abord une volonté politique. ndax li nga waxoon 2005 ngay waxaat renji non man gisaguma. ne li man je ne pense pas que lii mën na ko fi la première chose mooy il faut que nous euh, clarifions les rôles kan mooy occupé wu assainissement kan mooy occupé wu eau pluviale mu leer il faut loolu l'air pourquoi mun ñu ko Pourquoi le ministère collectivité territoriale agence de développement municipal.

Il faut day indépendant ñu diriger euh, une partie des eaux pluviales vers ces bassins évacuer les eaux. et ko Touba loolu des dafa investissement yoo xam euh, tout le monde sait que l'assainissement coûte cher il faut que l'État ait am volonté avec euh, l'autorité religieuse. ñu tant que defuñu ko moom bon benn solution moo am prioriser les zones avec des systèmes de vannage di xool les zones stratégiques par exemple ne buy taw zone bi la ñuy pompé bloqué yenn zones yi temporairement su zone boobu wàccee ñu pompé beneen zone bu wàccee ñu pompé beneen muy zone loo xam ne koy réguler mais loolu gënul li gën mooy def un système indépendant boo xam ne bu ci nekk day jël ndox di koy yóbbu ci biti nga xam nit ñi danaan buy taw bu tawee bu pare bu taw bi jàllee deux heures temps après ndox man na baña baña nek di sonal nit ci biir dëkk bi. waaye pompe fi bàyyi fële pompe waat fële bàyyi fi loolu la ñuy dund tey ci banlieue bi ndax loolu solution la aussi bu tawaatee nag même chose encore ngay defaat. xam nga pompage bi euh, d'habitude des fois sax c'est comme le travail de Sisyphe parce que euh, des fois da ngay pomper di ko sànni boo ñëwaatee li nga pomper woon ngay pomper wat parce que là c'est la nappe nappe bi dafa jege dans certains endroits. Linga pompe, pompé diko di bo xey suba ndox mom ngay pompé wat ba pare ngay fay xaliss ki pompé lum lum mom mom moom gëna lu rek nga fay ko waaw loolu c'est bon solution bi mooy mettre en place des des des infrastructures Euh, comme par exemple euh, projet bi bon celui qui la mais projet bi dafa nekk ci infrastructure primaire yi loolu le problème infrastructure primaire lay def euh, léegi dafa war a am infrastructure euh, secondaire ak infrastructure tertiaire maanaam jëli ndox ci koñ koñaat yi indi ci infrastructure primaire mais suñu def investir beaucoup d'argent ci infrastructure primaire bi ndox mi day des fa parce que dara yóbbu ko ci infrastructure primaire bi donc moi, tax ma déggee ren ay ay ministre annonce naan inondation donc bon je dis que ça fait rire quand même je pense que euh, li ñuy def mënul on inondation la preuve là malheureusement on l'a vécu et c'est dommage je pense qu'il faut aussi ñuy communiquer euh, mettre en place un système de communication d'information pour juste

est-ce que est tamit euh, solution le ci mbir mais voilà une bonne expérience hein, parce que bon moi qui vous parle je une directeur technique vivre avec l'eau donc moi, conduire opération euh, avec euh, le consortium pour la recherche économique et sociale Je nga professeur Abdoulaye Diagne professeur titulaire des universités économiste de renom donc nous liguons liggéey bu solo parce que vivre avec l'eau avec un budget d'environ de, de, 5 milliards, on a éradiqué plus de 50 points noirs dans la banlieue. yëmbal nord mën nga si lim yan. yëmbal nord dañ ko too fëkki am na zone yoo xam ne nit ñi gàddaayoon nañ dem dem dem dem euh, jóge seen kër bi ñu ko defaree dunoo dellu dem dëkkaat foofu wala ñu def fa école boo demee yëmbal nord jàmmalaay euh, fa nit ñi gàddaayoon dem maire bi da koo récupérer def école parce que régler na problème Il y a des solutions c'est pas des solutions et j'ai dit une cinquantaine d'opérations le virus réalisé, mais l'opération qui coûtait plus de 50 millions, mais il faut aussi euh, à côté de, la grosse infrastructure, il faut une structure structures sur l'infrastructure au niveau quartier au niveau des populations avez Nimzat les gens citent ce projet comme exemple Médina Gounas, on ngi citer comme exemple Yombol Nord Yombol Sud ba Grand y a des points noirs qui ont été éradiqués par le projet Vivre avec l'eau avec peu de moyens donc l'eau, c'est possible mais quand même c'est dommage qu'ils n'ont pas capitalisé euh, on n'a rien fait pour maintenir ce projet euh, mais l'idée était que de pérenniser un tel projet parce que nous, ko fi mais malheureusement euh, euh, les pouvoirs publics n'ont pas suivi et le projet s'est arrêté là. Et c'est dommage. Donc, euh, la suite, on, la connaît. Est-ce que nous ko xalaat Massar nous mel bon pour revenir sur Kermassar, Massar il y a euh, inondé la partie euh, zone irrégulière et zone régulière zone régulière c'est les Parcelles déjà même le nom pose problème parcelles assainies alors qu'il n'y a pas d'assainissement bon dee xool viabilisation bi ça n'a pas été correctement bien fait bu ko dee xool tali yëpp mënoo surplombé de de quoi ce qui n'est pas normal booy terrasser da ngay da ngay def terrassement boo xam ne da ngay prévoir écoulement des eaux pluviales les foofu réceptacle d'eau la bu tawee ndox mi day ne foofu du dem loolu moy indi loolu moy ki bo de ñu ko sax inondation parce que inondation moy ab cours d'eau bu débordé wala dara mais li bu tawé ñom ñoo créer les conditions pour que ndox mi des foofu légui bu fa déssé noo man def pomper ko rek yóbbu ko fenn donc muy les zones régulières et c'est dommage que une structure publique di defar ay ay ay ay dëkkuwaay di ko joxe muy muy muy muy euh, muy muy ñu ñu ñu ñu yegg ci loolu parce que boo dee rappeler le président Abdoulaye Wade fi mu def jaxaay da koo jënd ci SNHLM da koo jënd pour def les mille logements jaxaay voilà te bu mu koy bu mu ci yéene bi mu ci amoon mooy que ñooñu tàggali koog ndox ba faw mais léegi boo demee fekk lañ ci biir ndox mi donc mais président Liman, moi ay je pense que nous devons ngi def leen war def li ci des rek nous la avons. suivre chaque franc investi nous devons wax fan la malheureusement au Sénégal on n'évalue pas et on ne sanctionne pas ni positivement ni négativement c'est dommage pour ce pays je pense qu'il faut que nous remettions les choses dans les rails respecter l'éthique que les gens soient sérieux dans ce qu'ils font boo la partie irrégulière mon habitat spontané village traditionnel c'est autre chose Et de quoi il faut nous restructurer quartier il faut avoir aussi du courage politique pour le faire parce qu'il faut ramener ambulance fa sapeur pompier la fa police l'insécurité, fa dugg insécurité va nga fa ay ruelle mais il faut nous restructurer Comme ça woon nan faire nous restructurer les quartier après nous régulariser sur le plan foncier ku ci nañ jox petite de propriété nga xam ne nga euh, suqali ko parce que li gën bon ci inondation moy day gën a appauvrir ñu pauvre parce que banlieue bi ñu fa dëkk moy ñi seen doole parce que Assainies ñu fa dëkk moy ñi xam ne yaakaar nañ ni seen doole dafa xaw dafa xaw a donc mais inondation bu ñëwee da leen di gën a da leen di gën a paupériser et bo demee sànq ñi nga wax vivre avec lu amna ay études d'impact yu ñu ci def sur le plan économique, sur le plan de la santé publique, sur le plan de la résilience, changement de comportement. Mais les stations là. Hein. C'est les, les, personnes les plus vulnérables qui sont les plus affectées par les inondations. C'est dommage. Ils sont paupérisés. Les gens qui ont des une télévision, un frigo, ce que C'est différent de quelqu'un qui avait au point 1, mais il ne suit pas les inondations. Pourtant, il a des réseaux, il a des réseaux. Tout le monde est trop. Il y a des gens qui ont des inondations, ils ont recommencé après à zéro. Et c'est dommage. Je pense qu'il faut qu'on essaie de trouver des solutions structurelles, mais pas conjoncturelles, pour régler ces problèmes d'inondation dans ce pays. taxawaayu nguur gi ak taxawaayu askan wi nga xamante ne moo nekk si mbënd bon moi li ma mën a jàpp mooy que état bi mi ngi effort parce que euh, mettre ay plan c'est bien. Euh, waaye li ñu wax dugal nañ ko si xaalis ba tey ji dara réglé wul. moi moi bon moi personnellement je ne crois pas à ça hein, parce que. Euh, et man damay inviter même état bi hein, pour que parce que tamit il faut jouer la transparence jusqu'au bout boo nee def naa lii nit ñi di ci dute am nga journal euh, un journal public muy le soleil excusez-moi de la publicité mais nga on a ONAS lii la dépenser réaliser na euh, cité ñu ñu xob xam li ñu fa dëkk xam na amna wala amul mais nga génne ko mu leer nañi nga né montant bi li la nga calculer tout le monde sait calculé mais y a rien à cacher ils n'ont moi je suggère que ñu génnee dans un journal ne lii lan def ONAS ne lii laa dépensé ADM ne lii laa dépensé keneen ne lii laa dépensé buñ ko boolee muy montant bi ñu parce que montant bi chiffre bi ñu joxe daaw ñu leen ko jox il faut pas que ñu féew ci li leen jox nan ko publier transparence dafa war ci lépp muy marché public muy lu mu mënta doon il faut publier nit ñi dunoo war a xam buñ xamul nag mooy loolu mooy indi ay interrogation ñuy wax lii ñii di wax laa mais beau publier ne lii la bi fi euh, Abdou Diouf ne def na xam 1000 forages Abdoulaye Wade nako ko ñu commencé di ci journal bi né def nañ forage sangam sang doo liste forage yëpp loon joxe bien que am na forage yo xamné amul ay dëkk amul forage cité nañ leen mais ñom jéem nañ sax def exercice génnee ne dëkk yi ñom am forage ak forage bo fa né mais li ay ay c'est de l'argent public nan génnee fuñ ko def ñu publier ko dans le journal chaque jour ñu génnee liste bi nit ni gis c'est aussi simple que ça on n'a pas besoin moi vraiment de discuter sur ça moi, je, je, je, je, vois, je crois. Je ne vois pas. J'ai le, le, le, droit de douter. Moi, je suis un ingénieur. Hein. Je ne crois que ce que je vois. ci tënk rek lan mooy saafara mbënd mi. ci Sénégal ba mu dañ fii dañ banlieue ba dañ ci biir gox-goxaan yi ci biir réew mi. non mbënd mi pour man saafara ma ne parce que limite au Sénégal trois mois les taux. te trois mois yi boo dee plus pluie qui ñu ci am mu sonal bariwul ay benn période lay doon ba pare inondation yi li ko gën a indi c' est pas la pluie en tant que telle c' est que ndaw ndox ma fa nekkoon évacué wuñu ko ndoxaat fekkaat ko fa ndox fekkaat ko fa loolu moo indi inondation yi donc nan trouver un système boo xam ne on met en place des infrastructures di kat ci structure boo xam ne moo koy gérer mu leer nañi ñu mettre en place des infrastructures primaires mettre en place des infrastructures secondaires. des infrastructures yu fi nekk ay Promoville ay ADM ak yooyu genre yooyu xanaa kay war nañu mën a dara nag si mbir mii nag seen taxawaay daa sooxe. voilà non xam nga ñoom ñëpp boo dee xool euh, loolu du seen métier par exemple boo jëlee. du seen métier mais ñoo ngi ciy jëngu. waaw Agirut day defar tali. waaw buy defar tali. bu tali bi laajee mu def assainissement mu def assainissement. waaw kooku moom assainissement yitteelu ko tellement. waaw mais moom tali lay. defar tali ko buy defar bu tali bi laajee assainissement mu def assainissement comme ñeneen ak ñeneen ak ñeneen mais assainissement yi ñu yitteel mooy ñin ko dénk ñin ko dénk nag na leer parce que euh, la réforme en euh, dafa leer ah ONAS. mo waro a yore affaire assainissement Sénégal muy eau usée au pluvial mais nak il faut aussi jox leen ay moyens. pour yow dañ leen joxul moyens. ah non amuñu ah, l'ONAS n'a pas les moyens de sa politique légui sax tànne na par rapport à avant mais il faut ñu jox leen ay moyens parce que assainissement dafa ne loo xam ne na amul rentabilité immédiate parce que su na nga ko rentabilité financière donc ko financer mais état moko meuna jël en charge bu dee ndox la duñu lay jaay ndox nga jënd bu dee courant duñu lay jaay courant nga jënd mais assainissement boo ñëwee. Quand moi fait les, réseaux obligatoires Personne. Il n'y a que l'État qui peut supporter ça. C'est pourquoi, bon, nous, euh, chaque fois demander, nous mettre en place un fonds pour l'assainissement. Pourquoi pas Comme on a fait un fonds pour l'entretien routier, pourquoi on a fait un fonds pour l'assainissement Dougal fait Khalis. On a jël ko coup. ci lim ci war a liggéey def ci lim jot am aussi mu entretenir a un réseau ainsi de suite donc je crois que le fonds pour l'assainissement il faut aussi nous tendre vers ça ah, pour prendre en charge maintenant les préoccupations en matière d'assainissement. Diassif euh, dernière question rek ñu gis fa ay zone de captage ndax loolu amul lu mu mën a saafara si li nga xamante ne ce li vous mi. xam nga boo dee xool dafa am zone yoo xam ne sax da lay wan ne carrément du zone zone de captage zone de captage madame, c'était une zone qui était réservée pour euh, alimenter la nappe phréatique au niveau de Dakar usine des eaux c'est à côté bon nga jël ay yenn cité ñu la cité cité euh, pépinière etc. C'est des zones dont les Nordiques sont évocateurs C'est des zones qui ont ne malheureusement ils ne dëkk pas dire il faut que problème du Sénégal moi je dis et je le dis je l'assume il faut que problème mu ñu urbanisme domaine domaine cadastre tant que régler wuñu problème le Sénégal du ci ay même ville bu bees bu ñu bala mu yàgg nga seen se ñu

bu ndox euh, tuuru bon ñu ne an baax a des ne bon da ngay dem wat bon essayons essayer de trouver des solutions pendant que les gens habitent là mais c'est dommage hein que bo demee fek ay zone ñu morcelé ko ñoo xam ñom ñoom ñoo war protéger zone bi ñom ñoo ko aménager dëkk fi bon lolu moom ça ça n'est qu'au Sénégal hein. ñoo ngi 2021 kañ lay jeex ah lolu moom 2005 waxoon nga dé waaw mais lui, 2021 non non non non moi je je vais être très optimiste et je crois que aussi euh, état am na volonté surtout le président de la République je crois que vraiment mbir bi moom bu mu je te que nous moyens mais mais pour moi, euh, euh, il faut que nous nous ba pare problème au Sénégal je crois qu'il faut que nous wàññi politique il y a trop de politisation des affaires publiques il faut ñu arrêter ko. il faut que arrêter ko ci partout il y a de la politique au Sénégal ministre de l'intérieur bu taxaw si biir ndox mi xuus loolu <laughs> politique non xam nga bon ni mais mais mais politique Sénégal il faut ñu politique bi si liggéey franchement euh, boo que soo ba ngoon euh, politique matin politique midi politique soir le soir euh, télévision sénégalaise et c'est ça. yow li ngay que un sujet d'actualité mais li c'est politique ay coalition ay local ay kii mais bala ngay wax loolu mais nan wax li li li li li intérêt population bi parce que politique lépp du dara lul nekk euh, esclave euh, bëgg-bëgg askan wi du dara. maire bi jóge fee ak gàngooram ministre jóge fee ak gàngooram directeur jóge fee ak bando nga gis ay banderole ak yooyu. ça c'est le Sénégal. C'est dommage, hein, mais malheureusement, c'est ça. Moi, je pense que il faut que autorité nous arrête. Il y a trop de politique dans ce pays. Trop trop de politique pour occuper des fonctions il faut être politicien même à la limite qu'on ko nekkul administration ñi ci nekk ñun ñëpp dem nañ seen yoon ça je le dis je l'assume nañu la politique Sénégal, il Sénégal faire la toll inondation Covid ak ak tant que régler nos problème de euh, la politisation excessive nous ne dem fenn on n'est même pas sur la voie de l'émergence koo ci interpellé njiitu réew mi. non tout le monde je pense que nous population autorité politique politique bi daal bari Sénégal on y a trop politique war nañ ko wàññi te liggéey. Mamadou Diassé ñoo ngi lay gërëm di la Sante. en tout cas je vous remercie euh, Adia c'était un plaisir de partager avec vous ce, ce plateau et di la ñaanal aussi ci yoon bi nga jël yàlla na ci yàlla jàppale j'espère que wax jën fi wax aussi bon am na am na askan wi. Euh, loolu lañ ci jublu bon bëgguñu heurter kenn mais tamit dëgg bu jotee nañ ko wax donc su crois que loolu lañ ñu jàngal loolu lañ xam Donc, euh, vraiment, je vous souhaite bon vent ainsi que toute l'équipe qui vous accompagne. di fàttali leen rek yow ingénieur la hydraulicien nga aussi sa xam-xam màcc loolu ci wàllum mbënd lépp luy jëm si mbirum ndox ak tali ak yooyu nga am si expérience bu toll si fanweeri at ñoo ngi lay gërëm di la sant mbokk yi yéen it ñoo ngi leen di gërëm di leen sant di leen jox dig daje ay bés bii di ñëw ci invité de la semaine ñu gën ko xamee ganu ayu bés bi.